bokk julli di bokki taalibe yi ci ndigalu kilifa gu tedd gi di Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yëkkati kàddu di ko ubbil rek ndax seen digg moom li ma ko doy doy doyuma ko ci seen seen diggante ndax xam ngeen ne ba ngeen dalee ba nëgg lépp moo ko ànd ak yéen kon li sëriñ bi di wax wa fil qalbi min ridwani fii ma ukinnahu daninan bihi inna sudura xubóoru loolu mooy li ko dal ci seen digg yéen lim yéene bëgg ko wax kenn doyu ko ci bu ñëpp maasoon ci di ko ko waxale kàddum rek moo ko mën a mottali kon dañ ko ubbi rek jotaay bi nag mu lañ ci wax ndax day jataayu ndam di jataayu ndamu Sëriñ di jataay ndamul sëriñ bi di wane it li sëriñ Tuubaa waxoon wal yow ma yoon sii bi yow mi yow bi xat sama tey ju ne gàcceel na sama démb kon loolu dane fàng ba jërut woon ko amati bët na ko suñ kilifa gu baax nga Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon kon ci diggalu sëriñ bi ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax ñaan gi dafa bari lu ko waral ndax taxawaayam dafa matale sëkk ni ko sëriñ Yuusu waxe léegi ndax bi fi nekkee ay kilifaam jiitu na sax njabootu sëriñ Tuubaa gi waaye ba mu fi nekkee kilifaam nga Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbakkeem Cheikh Mouhamadou Bachir dégg naa ci kàddoom mu wax ne dama ko wax ne ko saa soo ma séenee may ñëw rek xamal ne lem naa sama xel denc ba kër moo fi jóge mas amu bëgg mas amu bañ noonee la ànd ak moom ba làq ngërëmam làq ngërëmi kilifaam yëpp mboolem jabootu Sëriñ Tuubaa gi kenn ku ci ne ñim jamonoonteel ku ci ne séq naa ak yow loo xam ne loolu doon na sëkk firnde ci loo xam ne ab joxañ la joxañ ba taxawaayu tey bii ne na kenn ñoom seenu gis dafa neexoon lañ gisoon mooy fii mu toll tey dégg naa ci kàddoom mu wax ne am na ko ko mos a seer kàddu cant ji ci Cheikh Mouhamadou Bachir ba mu waxee ba jeexal sëriñ bi da ko de rekk de waaye lii mu wax bu fekkee mi ngi ci yow nanga nga fexe ba sax ca bu nekkul ci yow tam na nga fexe ba mu nekk ci yow lool nag yàlla def na ko ci moom kon day ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax njabootu Sëriñ Tuubaa gi doy loo woon nañ ko doy loo goo xam ne kenn xamul fu mu yem. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bañ na lu ko daa doxloo ak di ko ko yónni te booba xam ngeen ne ñi ko jiitu ci yoon yu bari na waaye positif mu ak dogo moo ko Cheikh Abdoul Khadir gane jëne ko ba tàyyi bu ma saan siyaar si Sëñ Saaliw ci ngan yi mu daa def moom sax boo bu agsee moom la njëkk laaj ngir jëli ko kon loolu seen diggam moo ma tax diggam ak Sëriñ Saaliw nag àdduna sépp xam nañ ko ndax Serigne Saliou seddoon na ko ci ci moom cër boo xam ne kenn xamul fu mu yomb ndax lu ko mas a ñor wala lu ko mas a itteel moom la ci jiital bi mu demee ba nga xam ne dem na ba Cheikh Mouhamadou Mourtada bàyyi ko fii itam mu xamal ko ne sa jëmu jëma ci doy kon ñoom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ci suñ bàkk Madina rek ci jëmmam ji lañ koy xoolaat suñ bàkk Madina dafa Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne Serigne Touba de sëddi képp ku ci jub te tegu coono mu dugale ci suñ biir daanaka suñ bàkk mbaat dina lu ñu ko ëppale waaye moom mii nag àgg na ci xaal boobu tey amul dara loo xam ne eh, ñi ngi ko daa xalaat ci doomu Serigne Touba ci pëstéef ak yaakaar te buñ xoolee jëmm ji duñ ko gis ci moom digg mag Serigne Souhaïbou ñëpp xam nañ ko ba ñu ne ci biir daara ja daara fa ñëw xam nañ seen diggante àdduna sépp xam nañ ko soxna May. ñëpp xam nañ ne laytul xadri gii moom la defoon jëwriñ ji ak ngërëm yëpp kon moom ngërëm li dafa yàgg te muy loo xam ne dafa dëgg ci moom yàlla binde ko ni dund lu lu sëñ Tuubaa bëgg lu lu sëñ Tuubaa tallu lu sëñ Tuubaa damay wax ne Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam cër ba mu àgg xam fa mu àgg am mënuñoo mënuñ koo xam nag waaye ku ko xam ku ne danga xam ne itteem génnut ibaadaat yi jaamu yàlla yi muy def li mu toggoo ci njàngum alxuwaan ak xasida li mu toggoo ci ibaadaat yi waaye yàqalu ko ak jëflanteem digg ak nit ñi daanaka day mel bis bi dara waru ci dara warutoon xaj ci ni mu dunde waaye lépp yéene postéef ak bëgg sagal Sëriñ Tuubaa rek mooy tax loolu mu du ko def kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi loolu mu yàgg te ànd ko wér doon na sëkk taxawu ñaari doomu Sëriñ Tuubaa loolu moo ko njëkk am ci setu Sëriñ Tuubaa kon tawfeex la ñu ko Sëriñ Tuubaa defal ginnaaw bi fi njëbooru Sëriñ Tuubaa jeexee ci kaw suuf Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ku ne xam na fa mu toll ci at cër bi ko yoon wuru jox cër bi ko àdduna sépp jox waaye ba nëgë ni di saataguñ ku mel ne moom mu jug taxaw laxasaayu boole ko juróom-ñaar fukki million ak ak lu tegal def ko addi Cheikh Mouhamadou Mbari ngir Sëñ Tuubaa loolu itam ba mu koy wax dafa dajale njabootu Sëñ Tuubaa gépp waxoon ne lam la ma ci gën a jund mënoon naa koo jëf te kenn du ko yëg waaye dama leen di jàngal aw yoon ñëpp xam ne nii moo nii moo ware noonu la ware ñëpp loolee nag dund na ko moom digg mag Cheikh Sidi Moussa noon la ànd ñoom mës amul bëgg mës amul bañ kenn mësumaa yónni ci moom ma dem xam xalaatam ba ni mu doon Sëriñ Tuubaa kon moom jataay bi tey bu fekkoon sax lu ñuy jaay la dama damaa wax ne da jënd Sëriñ Tuubaa nag lu waay am dala ko dala ko gën a baaxee la ko waaye bu doon bu doonoon lu ñuy jaay dama ne jënd te sëñ Abdou Lahad waxoon na ne yoon wi yii rekk fi ne liñ la dénk ak liñ la may ak liñ la jaay nee na liñ la dénk waxtu wu neexee borom mu jëlaat ko li liñ la may mu neexee kala ko mayoon mu jëlaat ko li nga jënd nag kala ko jaayeen taneetulu ci taneetulu ci njëgg kon sëriñ bi lii mu am ci lislaam ji waxuma yoonu murit waaye am ko ci biir yoonu murit ndax moom day wax ne fi ma ne ci sëriñ Tuubaa ak ni muy doxee ci sëriñ Tuubaa mboolem ñi bokkal sëriñ Tuubaa ni ma ko yéenee sama bopp ni laa leen ko yéenee waaye suñ borom delloo na ko ko nag ndax njabootu Serigne Touba gépp maase nañ ci yéene ko jataay bi yéene ko mu yàgg lu mu fi gën a yàgg rek xeeb nañ ko ngir xam li muy jëriñ ci yoon bi ndax li ci li ci gën a tuuti mooy foo gisee jëmmam rek saxee dellu ci yàlla foo gisee jëmmam saxee dem ci Touba loolu doon na ko sëkkub liggéey leneen li ci des lépp mën nañ ko muñ waaye loolu li nga mooy li nga xam ne kenn mënu koo ñàkk danaa ci tànn jenn seen seere ndax njabootu Serigne Touba koo ci wétan seere sa seere sami ci sëriñ bi am na ci loo xam ne mënees koo yëkkati ci rajo du ko wax ndax loolu boo ko waxee sax day nuru dara waaye sëriñ Cheikh Mbàkkim sëriñ Saliou wax na ne wa yawma aslama jibrilul aminu ata bi isni man huwa fawqal kulli qaharu mualliman anna islaamal fata umarin busra li ahli sama wal kulli yaxtaaru nee mooy xalaaf ak Cheikh Mahmoud Moustapha Cheikh Mahmoud te moom suñu seex kon xam na fi fi mu toll ak ni ko yàlla bindee du wax lu mu gëmut kon loolu doon na sëkk seera te njabootu Sëriñ Tuubaa gépp gi mu ko seqal ñëpp foofu lañ maase na ci moom kon yàlla na fi yàgg te ànd li ci dolli ko rek mooy bisum ndam la ndax aaya bi ma tari sëriñ Aatu Jaañ day jàmbaar lool àndoon ak sëriñ bi sëriñ bi xam ko si xamul dogam moo tax ma tari minal mu'miniina rijaalun ma maa ahadullah alayhi waaye loolu itam day wane ne mbiru Sëñ Tuubaa kenn dóoru ci dara lépp moo ko yorul boppam ndax ku xalaatoon ne moom mooy moom moom di suñu aatu mën na fee jóge motul weer yii ngeen jëfaat fi jëf jigéen fi jëf te dara taxawul lépp di gën a yokk lépp di gën a dox day wane ne kon jàmbaar amul fi ñëpp Sëñ Tuubaa leen dimbale sëñ bu xaar daan na ko wax jàmbaar amul kun dimbale am waaye kon yéen da ngeen am dimbalu Sëñ Tuubaa sëriñ bi nag liñ leen daa seer danaa wax ne danaa wax ne képp koo xam ne mi ngi xalaat ci yéen dara daa jàpp ne Sëriñ dara jomb ko te Sëriñ dara jomb ko kon yéen wanewaat ngeen it ndamul Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ dafa waxoon ne tubaab bi de damay njëkkante ñoom koo xam ne njëkk nañ ma ci moom ñàkk naa ko bu faw waaye koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw yéen ñii nag xam ngeen ne Serigne Touba bi bi ñu ko yóbbu njaarim raamoo masiri ilaa Jurbel la daal lasasi law aayeenoo sirra maa fi sayri maa raamoo ñëpp xam nañ ne la toxoon tubaab yi indi ko fi ci seeni natt mooy jàppoon ne fii ak njaarim toll ci ay taax bu ñu ko fa indee ña Serigne Touba xasoon defar kenn moo tuddee na soppi waaye ñii judduwaat ginnaaw bi ñëpp cinéma yi ak marché yi ak mbooloo mi daal leen fab bi yéen ñii nag yenn weddil Serigne Touba tuumam wane ngeen ne Sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg def ci nit ki dara mënta dox digg diggam ak loolu dangeen layan ngeen Sëñ Tuubaa wa wane ngeen ndamul Sëñ Tuubaa kon nag na ngeen sant yàlla bu baax te xam ne nii ngeen di doxe itam Sëñ Tuubaa leen ko digaloon sëñ Yuusu nag yow da nga am tawféex ndax tawféex ji mooy daayira bi daa doxoon ñu ngeen di ànd ci seen biir di tànn njiit ba agsi si suñu aatu mu def ci jéegu rëy rëy ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne dund naa ko mu xam ko yow nag da nga am tawfeex ndax yow siñ bee la tànnal boppam te ba mu dee tànnal boppam itam diisoo ci laaju laaju ci waxtaanu ci daa noppi rek yëkkati boppam kàddu wax ne fu ma gisee aato sama xel dem ci yuusu fu ma gisee yuutu sama xa sama xel dem ci aato kon sëñ bi xamoon na ne bi dara luy soppi ko mu ci loolu nag wane wane nga ko tey jii ndax bi ngeen mujjee siyaare ñaar téeméeri million ngeen amoon tey siyaare bii bi ngeen koy def bi nga koy wax Serigne Moussa. di ko ca laajloo sëñ bi ndigal boo li des ci koor gi mootu fukki fan ak juróom sëriñ bi tànnal la bis diggante mootu fukki fan juróom ngeen dajale ci ñetti téeméeri millions yu tegal li mu jëysun te xam ngeen jëysun li muy tegtale ci mbirum Sëriñ Tuubaa kon yéen am ngeen tawfeex bu noppi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag moo leen taxawaloon tegoon leen ci yoon waxoon leen ne leen fu Sëriñ Tuubaa xëy na ngeen fa gonte fu mu gonte ni ngeen fa xëy loolu nag wàccu leen ko waxoon waxoon na leen ne leen itam ngi jëm ci dëkk boo xam ne yéen a ko dëgg ma sax dara mun leen te fa àgg te bu ngeen fa àggee képp ku ngeen ko àndul daa leen ci ñe loolu yàlla defal na ko tey ndax mel na ne ñi ëpp ci nit ñi gindi ko nañ seen ba ca des it waxoon waxoon na leen ne leen lépp lu ngeen dajeet ci seen biir te kenn raxu leen na ngeen xam ne wax yu jóge Sëñ Tuubaa la loolu doon na sëg kon nag sant leen yàlla bu baax te xam ne Sëriñ Tuubaa liggéeyal ko képp ku mu defal tawféex ba nga dëddu àdduna bàyyi lépp di ko liggéeyal na nga xam ne am nga defarug àdduna ak alaaxira ndax moo ñaanoon suñ boom ne ko wax di xawaay jëlli si na daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu ma nettali si rek lu gàtt ndax dafa nekk ca njaareem ca ca ca gànnaar ca déwén seli sëriñ bi ñibbisi ne nañ ma wool fere yépp ñu daje ñu woor ko fere yëpp ñu daje mu wax suñu alliyu seen ak alliyu wool ma fere yi ñu woon ñëpp ñu daje sëriñ bi ne ne alliyu limal ma ci yéen yi am Sénégal loolu sëriñ Jean bi moo ko daan nettali suñu alliyu seen di lim gum lim rek sëriñ bi ne ko du googa ba jeexal mu ne ko xam ngeen lu ma ci jubloo mooy damaa bëgg ngeen xam ne lépp loo xam ne dig naa leen ko fii tey ni ngeen di gisee lii ma leen di bëgg di ngeen ko gisee daane suñ boroom xamal na ma ne balaa nga ni si dana danañu fekkee Sénégal ci ak ci yéen li ma ci jublu nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp lu may dig ci àdduna rek bu ëllëgee dangeen ko gis fii ma leen ko waxee nag ba kenn ngeen keroog ngeen fi jógee kenn du faatu ci kàttanu yàlla fekk am na ci menn magum taalibe mu doon xaaru ñëpp jàpp ne day faatu waaye dafa wéraat ba sëriñ bi ñu bisu. Eh, Sénégal ci ci yéen Jolof mu door faatu kon loolu mooy mbiru Sëñ Tuubaa lii ngeen fi indi muy addiyee nag rëy na lool waaye Sëñ Tuubaa dara rëy ci ndax nekk na ca gànnaar am ci bokki taalibe yi ci ci kilifa yu mag yi wax ne dafa bëgg dajale addiye dafa bëgg dajale Sëñ Tuubaa addiye ju ko kenn mësa jox daal di mbay mbay mu yaatu dajale ay taalibeem dajale lam amoon lépp jaay ko mu nekk juróom-ñetti junni mu ànd ak mbooloom ñëw fekk sëñ bi ci ci ci ci gànnaar bi mu agsee nuyoo sëñ bi daa ko doon see tànk mu ko dafa daa siyaare si woon bëggoon daa jox addiya addiya ji nag mu ngi toll ci juróom-ñetti junni sëñ bi ne kenn waxu ko dara dugg ci biir na sootu mu ginnaat daal ne ana ana ndawi Ahmadu Ndumbe mooy sëñ Mandumbe fekk sëñ Mandumbe yónnee na fa ndaw ba ndaw la agsee sëñ bi ne ko anal doon say tànk mu ne ko sëñ man Ahmadu Ndumbe moo yónni mu ne ko lu mu doon yónni mu ne ko àddiya mu a ko lu mu sol mu ne ko xawma ko ka indi woon loola sëñ Tuubaa ne ko àndal ak moom ci biir kees ya wàññi ko ba xam ñaata la bañ demee wàññi ko muy kon sëñ tontu na kon nañ xam ne sëñ Tuubaa lépp ko waaye di defal rek yéeg ne la ko defal lañ ko mën a fayee ndax am na koo xam ne gàmm dafa jot sëñ wax ne kooku wax ne dafa bëgg a teral gani gani Sëñ Tuubaa delloo ko fu njukkal ca njaareem rey ay nag yu baree bari ak i xar ak la man lépp séddale pension ba mu fees lépp mu jëf ko ay ñam ba gàmm gi jeexee mu ñëw ci sëriñ bi leeroo ko li mu jëf sëñ na ko ana ci jubloon mu ne ko xanaa del delloo la njukkal sëñ bi ko mënu leen ko kon yàq nga si jëf ndax la la nga man ba tax nga def ko maa tax nga man ko kon kon kon lay cant gi mooy ngeen yëg ne maa leen ko defal kon nag foofu la ñuy jeexale di ñaan sëñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér te sëñ Tuubaa tàbbal ñu ci lam waxoon ne add xaltu nafsi wa jamii ahli fi jey bi afdali wara bi fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bala maa jeexal nag sëriñ bi xam ngeen bi muy ñëw ànd nag lenn ci ay bokkam ndax mu ni sëlim ñëpp ndax bu sëñ bi xasee toog yoonu murit baaxoo noonu waaye sëriñ Isaaxa Mbàkkeem Seex Muhamadu Basiir mi ngi toog sëriñ Abdou Samad Mbàkkeem sëriñ Chouaib mi ngi toog sëriñ Moustapha Abdoul Akram mi ngi toog ak yenn mboolem cheikh yi sëriñ Tuubaa ak lenn ci bokk yi ñu bari ñu ngi fi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal waa daayira bu salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.